nga musal ma ci notug bor ak notug noon ak ndokkuk noon yi allahumma inni audu bika min galabati dayni wa galabati aladuwi wa shamatati alaada allahumma inni audu bika min galabati wa galabati aladuwi wa shamatati alaada xadiisu bis bi yonent bi alayhi wa sallam nee na ngi dikk joo ne nit ki du faaleeti li am ci alal ndax ci li lew la bokk wala ci li xaraam xaddis bi buxaari nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa yati ala nnaasi zamaanun laa yubaali almaru ala ma minhu am min alxalaali am min alxaraam rawaahu buxaari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 soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre dina yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètre dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6h56 juróom-benn waxtu yu tegal juróom fukki simili ak juróom-benn di so 19 h juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñeent yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin